salaamaaleykum salaamaaleykum damay def benn petite vidéo rek juste pour amee Khalifa Niass mi nga xamante ne sëriñu caga la sëriñu wuyu la sëriñu kacapaa la du wax ko tu dëkk man amee Khalifa Niass sama kañ laa pare ci yow ba nga ne greffage day julli ak greffage araam moom ci laa ne yow amoo nawle dama bëgg na nga ŋaang tuuti rek Sonko wat Sonko mënoo ci moom ñaar dërëm ndax xam nga tax ñun jeunesse bi ñoo xool Sonko ba mu neex ñu ñu ànd ak moom puus ko te day gis na Sonko 44 ans la am sa ñetteel bi doom moo ko mag xam nga yow kañ laa pare ci yow ba ñu dem tasee ci beneen bi ñu sol suñuy jiini dang nga ni laay laxa illa laa ñu foog ne dañuy delloo ci yàlla nga naan jiin bu naree manqué yàlla na ceeb manqué Sénégal yow ku la nawloo wax ma Ahmed fa Niass kan moo la nawloo ngaangal nga bu wat bàyyi doomu jàmbur bi wadd muy Sonko te pare nañ heure boo waxee Sonko ñu génn dal sa kaw xale yi Sonko yi dañu féroce ñun ñii pare nañ ko yow ngaangal doomu jàmbur ji wadd